maa ngi leen di nuyu di nuyu chef de garage bi di Seydi Dramé maa ngi lay nuyu ñu ngi ñëw fii nag ci turu naataange askan wi xëy na ci candidat yi am man maa man ngeen ci gën a ñàkk xam ndax suñu demee ci xel rek dañuy wax ne xam nañu Macky sàll suñu waxee Ousmane Sonko dañuy wax ne xam nañu Ousmane Sonko suñu waxee Karim Wade dañuy wax ne xam nañ ko xam nañu bàyyee mais Cheikh Alassane Sène bi mu tàppee ci yëf yi yàggul donc miin ko du yomb waaye nag su yàlla décidé benn yoon rek mën nga ko ñëw ci nit ñi des seeni xel des seeni xol ndax yàlla rek moom mën ma lay sant ci turu ñu tàbbal tàbb ci suñu ay liste muy honorable député Adama Sow wax nañ ko léegi lu jafe la réaliser mooy ñamuy jàngal fexe na ba am 100 pour cent ci classe am ci élèves yi lu jafe la kon kii suñu waxee nekk su demee assemblée dana fa am njëriñ dana fa am njëriñ ndax wane na ko ci tout yi muy jàngal te loolu lu am ama am solo la ndax tout tànk yi ñooy ëllëgu réew mi mbokk yi dama am ñetti projet yu am solo ak coalition naataange askan wi bi ci jiitu mooy d'abord Macky Sall warul am troisième mandat ci réew mi loolu mooy numéro un il faut que nit ñi comprendre ko ku def fukki at mu dese la ñaari at li nga war a def ci réew mi def nga ko dangay bàyyi say moroom ñëw ñu ñëpp ay sénégalais lañ daa mel ni garage bi Dramé décidé nekk fi chef de garage ba faw dana am jamono joo xamante ni da nga ko bàyyi te su ma juumalee ci nga wuutu mi ngi fi yow yaa ngi fi te te taxawuloo pour samp fi ba faw déedéet da ngay ànd ak ñoom accompagner leen ba benn jamono nga jox keneen te ni mën a gisee nit ñi ñëw am nañu yaakaar bu rëy ci yow te yaa ngi am tam taxawaay boo xamante ni taxawaay yu jaaxaanaay la njaboote ñëpp sant nañ la bu baax.

ma wax ne ñaar ñoo ko nar a financé TGV bi ci jiitu mooy xalif général des Mourides ci benn musée virtuel Cheikhul Khadim boo xamante ne benn fan lay toog jàkkaarloo ak ordinateur am deux cent millions de dollars lay jur pour ñu tàmbalee liggéey TGV bi mu nekk cent milliards de francs CFA beneen bi xalifu Baye Niass yàlla yàlla yokk leer ci moom moom mooy toog yor ordinateur am organiser ci monde bi la conférence internationale si dundu Cheikh al Islam su toogee en moins de quatre heures de temps dafay am quatre cent millions de dollars mu nekk deux cent milliards de francs CFA ñu boole ko cent milliards yële mu nekk trois cent milliards de francs CFA mu nekk fonds de garantie bi permettre benn fonds ci àdduna bi financer TGV bi te lu gaaw lay doon muy ñaar bi nga xamee moo leen ñor yi ñu nekk fii mooy la banque des femmes. dafa am benn département bu ci nekk bu tudd Allo Soxna May dañ ci nar a cinq cent quatre-vingts milliards waaye tey ji lay wax am na beneen allo bu ci nekk boobu transporteurs yi ñoo ko moom allo Njaga Njaay la tudd li tax ñu tànn Njaga Njaay ku sonnoon la ci yëf yi ku yàggoon la ci yëf yi turam law ci réew mi ba xale yi doog a xam nañu ko dafay nekk benn département ci banque boobu nekk allo Njaga Njaay loolu moo ñuy permettre ci xaalis cinq cent quatre yi dina am cent milliards boo xam ne daañu ko jël injecté ko ci àllu Ndiaga Ndiaye dafay yóbbu taximan yi dafay yóbbu ñu yor euh, juróom-ñaari place yi dafay yóbbu ñu yor tam kaar yu mag yi parce que il faut ñu renouveler le parc automobile il faut ñu renouveler mais ak intelligence Dramé war nga maa laaj cinq cent quatre-vingts milliards daa bëri cent milliards ñu injecté ko dafa bëri fan la war a jóge ma wax leen ne fi mu war a jógee dafa am lu ñuy wax aw xaaf ñi dégg wax fu lañ koy wooyee Sénégal voté na loi bi mi ngi ko voté mais ni ñu tëggee loi bi baaxul deux mille milliards mooy tourné ci wax wax moom ma leen di wax nii suñu demee assemblée am fa majorité dañuy tëggaat loi bi su ñu ko tëggee dañuy dañuy am possibilité capté ci deux mille milliards de dollars yooyu ñu capté ci un milliard de dollars du sax un pour cent suñu ko capté mooy permettre ñu renouveler le parc automobile allo Ndiaga Ndiaye mais dina am leneen lu mu lu mu und assurance chauffeur yi ak dimbali seeni njaboot ci wàllu seeni i pàcc dimbali seeni i njaboot ci wàllu seen i jàng ak dimbali ci wàllu réorganisation garage dafa am solo loolu lañu nana indi ci réew mi bu kenn wax ne mënta ne France am na TGV am na organisation naka la ay otom di dawee France am na organisation naka la jigéen ñi di nekkee ci jàmm weer ba weer jot France am na organisation naka la mag ñu koy jëlee en charge su demee ba am 65 ans 70 ans ba ba muy làqu yàlla yéex loolu nag ñoom ñi ko am am na lu ñu manqué ñoom mooy pétrole ak gaz jamono ji mooy France États-Unis Suisse Allemagne dañu ko manqué kan la ko yàlla may jamono ji mooy Sénégal moo tax ñoom ñëpp ñu ngi fëgg suñu ay bunt moo tax ma wax ne dara jombatul Sénégal jamono ji il faut ñu xam ko loolu nag mbokk yi li koy waral mooy Sénégal dafa war a taxaw léegi taxawaayu dimbali àdduna bi yépp li benn mag waxoon ca France benn imam la mu wax ne yàlla wan na ma nekk fii ak ñaar fukki ñaar fukki at képp ko soxla lenn ci àdduna yaa ngi daw utee ji ko Sénégal wax jooju mën naa leer suñu demee ba Cheikh Ahmad Bamba wax ci benn bayitam nazaani min al waral baaqil qadim allamahum bi anna nil abdul xadim yàlla seppi na ma ci jaar bi ba bokkatuma ak ñoom dara mu ne xam nañu may abdul xadim te daañu ko gën a xam loolu loolu su suñu demee ba nit taxaw wax ko yàlla may ko autorisation ne ko xamalal loolu jaar bi seppi na ma mm-hmm. te reine d'Angleterre mën a seppi moom reine d'Angleterre mën naa anoblir nit asamaan ki moom jaam yi mooy suñu borom te mbokk yi coono ba mu daj moom coono bi Seydi Hadji Malick daj fii ci Tivaouane coono ji Cheikh al Islam daj fii ci ci kaw Kaolack suñu fayeekuwul ñoom ci naataange ci réew mi kan mooy fayeeku kenn il faut ñu am compréhension man bokkuma ci xeex bokkuma ci xuloo bokkuma ci xastante bi xew ci réew mi loolu dañ ko war a dépassé bokkuma aussi ñiy jàmbat lan ndax réew mi metti na déedéet solution la ñu bëgg jamono ci li ñu war a toog di ko jàmbat li ñu nar a toog di wax di xastante suñu biir ndakaaru mi ngi toj nit ñi opposition bi su saaga pouvoir bi jël saaga guddi après opposition bi yeewaat saaga mate te ñun suñu problème yaa ngi yokku loolu la ñu war a dépasser tey jii taxaw indi ay solution te solution yi mënul bàyyi ko loolu ci jàngale mag ñi foofu la mun a nekk ndax kat suñu soxlaa kutus suñu doom la mag ñi déglee fa ñuy jaar suñu soxlaa pour takk ay sëy suñu mag ñi la ñuy jaar takk sëy suñu amee néew suñu mag ñi la ñuy jaar ngir am mën yërmande suñu leen di dugal ci biir bàmmeel waa léegi yeneen yi nga xamante ne mooy doxal suñu dund est-ce que dañ ko war a bàyyi France wala dañ ko war a bàyyi ni ñu tëggee suñu république déedéet la ñu am ci xéewal suñuy def suñu yooyule tudd takk ak dëj moom lañuy ñuy jël aussi dugal ko ci diggante yi mu doxal suñu ay dund ndax mag ñi seen lépp yàlla nangu na ko ci barke léegi nag suñu toogee di wax ni waaw léegi soo nekkee république waratuloo tudd loolu naafeq la ñun war nañu taxaw ne Cheikh Ahmad Bamba wax na war nañ ko waxee Nations Unies war nañu taxaw Nations Unies wax ne Cheikh al Islam nee na war nañu taxaw Nations Unies ci tribune bi président yëpp toog nga ne Seydi Hadji Malick nee na waaye suñu yeggee foofu rek changé complètement li wax tubaab bi nee na tubaab bi déedéet modèle boobu la ñuy imposer bi mooy mooy Serigne Touba la mu wax ak la mu sàkkee Touba àll la woon yàlla def tey jii marché Ocass moo gën a seer marché Sandaga àll la woon jumaay Touba moo dàq ci jumaa ci Afrique àll la woon la deuxième puissance économique ci ci réew mi Touba ku am marchandise. soo dugalee Ndakaaru da am yéene dugal ko Touba it loolu kéemaan yàlla la mhm. Seydi Hadji Malick la mu def te Tiwaawoon laataa muy ñëw Tiwaawoon ku bëggoon fo po bu yàlla tere Tiwaawoon ngay dem mhm. mu ñëw soppi lépp lal fa naasib xaq bil xaq soo demee Medina Baye dara amu fa woon wax nañu ne Cheikh al Islam bi muy samp foofu nee nañu àll la ci taw la mu samp fa ñeenti bant def fa mbaar ba tey ji deux cent millions de personnes ñu ngi daw di uti Medina Baye waa